ay ndaamaar ay étudiant yu rangsaloo gàddu seeni walis matelas saak wala mbuus ñu ngi fi ci biir université Cheikh Anta bu Ndakaaru feebaru korona coronavirus bi di gën di law nguur jël ay matuwaayam tëj daara yépp ci diiru ñetti ayu bés fii lekk ñuy gëstu bile feebar ndogal li bi mu jibee ba tey ab tiitaange la jur ci étudiant yi le

ak bu ñuy ñibbisiwaat. au niveau du campus mu teg fi ben dispositif de sécurité bu leer mu teg fi ay GIGN mu étudiants ku bëgg génn do génn fa ñu man yaana lool loolu solution mais les baye cinquante mille du duggaat biir réew mi kenn xamul lo yobbu té bo ñëwee kenn xamul lo indalé lool risque gën ko graw mom étudiant bobu ba tey ci gis-gisam di ñu xamal ni région boobu di Diourbel dañ ko wara mettre en quarantaine. région de Djourbel comme c'est la région la plus touchée mu essaie de canaliser la région de Djourbel tëj frontière yi xam kan mooy dugg région Diourbel ak kan mooy génn kuy dugg ñu teste la kuy génn teste la. Mamadou Lamine Wan moom li mu gis mooy ñu tëj frontière yi. dafa waroon tëj d'abord euh, frontière yi parce que boobu mooy décision bi nga xamante ne boobu la ñëpp doon xaar. que ça soit par voie terrestre que ça soit aéroport yëpp la waroon tëj parce que gis nañu temps yi yëpp gars yi ñu ngi jógee biir kaw di ñëw Sénégal. ñippi seeni kër taxul étudiants yi banque seeni yoxo ñuy xamle ni. bu ñu yeggee dinañu gën a ñaax askan wa fa ne ci bile feebar. bu ñu demee suñu waajur nañ leen sensibiliser am nañu dëkk yu dugg Sénégal xamuñ sa luy corona duñ ko sa waxtaanee donc c'est à nous qui sont instruits de revenir à Oubercaye et de discuter avec nos parents de les sensibiliser par rapport aux mesures d'hygiène qu'on a pris et qu'on les a exigées. nguur gi mënu def lépp c'est à nous les citoyens c'est à nous les étudiants ñi nga xamante ne ñu ñoo war a jàppale nguur gi ñu sensibiliser nit yi fu nga fépp fu xamante ne gis na fa ay rassemblement ñu te euh, ñu waxaleen que lii nañ ko arrêté parce que président président moo ko décidé c'est la raison pour laquelle ñu tëj euh, pour trois semaines ñu dem ñibbi. roñ seen i bagage tëj seen buntu nekk fas yéene wutali seen dëkkuwaay loolee la nongo yi nekk ci université Cheikh Anta daal di def ba tax bés bi di gën di wëy université bi di gën di wéet.